Aïda Diallo mi yëkkati kàddu yu tuub jëmale ko ci Serigne Mountakha Bachir Mbacké eh, démb ci guddi la yëkkati yooyu les kàddu moom mu nekkoon eh, soxna Cheikh Béthio Thioune nag eh, kàddu yi nee na rek moom réccu na li nga xam ne defoon na ko te sëñ bi ñaawlu ko moom Serigne Mountakha Bachir génnoon def ab déclaration di ñaaw lu boobee doxalin dañuy teewlu Aïda Diallo. kàddu moom laa yëkkati muy kàddu tuub ci sama diggante ak xalif général de Mourides muy sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke di tuubal di ci lu ma xam ak lu ma xamul di tuub ci lépp loo xamante ni euh, dox na fi te muy loo xam ni kat ak matadi doomu aadama la maa ngi ko ciy tuubal bu baax di ko jéggalu wax ne man ndey ci ndigal rek laa aju moom day li ma ko wax rek day sëriñ ci ñun ndax moo fi toogal sëriñ Tuubaa day woy jurit ci ñun lépp loo xam ne doxin la wala waxin bu dëppoowul ak li muy digle maa la muy tere moom day ñoo ngi ko ciy tuubal te di ki tuubal mbooleem umma islamique bi waaye di ci tuubal mbooleem yoonu murit moom daal maa ngi tuub maa ngi tuub maa ngi jéggulu te di ko seereel Serigne Touba ne tuub naa lépp loo xam ne lu ko naqari ndax yitte bi day lu def lenn lu ko naqari maa ngi wax ak nag sama mbokkum taalibe yi nga xam ne maay seenu jëwrin di leen wax ni moom day li xale fi bëgg rek moom de lu mun nañu moom la bëgg mbaa lu mun nañu moom la bëggul ci loolu lañu fas yéene ne tuubal ko te déglu ndigalam te dégg it li nga xam ne mooy ay tareem ñu moytu ko la nga xam ne mooy ay ndigalam di bëgg a bëggam ñu soobu ca maa ngi leen maa maa ngi nuyu ñëpp di santaat bu baax te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér mu doonoon